asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi maa ngi yëkkati nuyoo ak ziar bu ma tibbee ci sama biir xol jëmee ko ci sa jëmm ju tedd ji nuyoo yooyu ak ziar yooyu ànd ak cant ak ngërëm lu doy loo xam ni ak cant loo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu nag li ko waral sëriñ bi mooy sa taxawaay bu rafet da nga am ci biir réew mi ak lépp lu soxal réew mi ma ñëw nag ànd ak délégation bi ànd ak sama soxna ci délégation bi ñu ñëw ndokkale si ci bés bu mag bii di bésu xadimu rasul di bésu lislaam di bésu yoon di bésu Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp ma ñëwaat sant di bu baax na la jërëjëfati ndax sama xol sedd na lool sama xel it yokk na dal bu baax ginnaaw kàddu yu am solo yi nga yëkkati keroog jëmee ko sama jëmm ji keroog ba ngay fàttali taalibe yi ak jullit yi bésu Maam Borom Tuuba bii ñu dégmal ak wàññi kàddu yooyu lu rëy la ci man sëriñ bi maa ngi koy sant bu baax ndax xam naa yaa ma téyel sa bopp su dee loxo bopp ci tedd yi bëggal ma sa bopp ngir yàlla ak suñ tuba kon jërëjëfati ci lépp ba loolu na faw ma taxawaat yokkoon ci taxaw bi ma taxaw sa ngir jàppale la ci liggéey bu mag bii ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa ci dëkk bu tedd bii ak ci yoon wi yëpp taxaw sa ngir jàppale la ci naal yooyu te bi ñu si gën a ràññee te xam ne bokk na si li gën a nekk sa xol mooy daara ju mag ji di daara ju kawe ji di université Cheikh Al Khadim ñu fas yéene euh, nekk sawet ci boor boobu ndax liggéey boobu bu sottee dana bëri njëriñ lool l'islam bi bëri njëriñ Sénégal ak Afrique kon loolu it na jàppal ni gouvernement bi dana nekk sawet si lëpp loo xam ne ginnaaw ba nga sunga liggéey bi def ci lu rëy li ci def lépp loo xam ne si sunu wet la dinañ ko mottali bu ci yàlla andee maa ngi lay santaat sëriñ bi ndax bés yi ñu génn waxtaan bi ak bu mbas mi duggee ci réew mi yaa njëkk a jóg wane yoon yëkkati alal ju takku dugal ko ci mbirum paj mi wane yoon joxe ndigal kon yaakaar naa ne dañuy wax takkal sa masque ngir jëfe ndigalu sëriñ bi lu am njëriñ la ci réew mi te yaakaar naa ne bu ko taalibe yëpp jëfee dinañu am màggal bu am solo ndax ren ku ne xam na àdduna bi nu mu doxee waaye am nañu yaakaar ak yàqin lépp dina jàll si jàmm ak salaam kon maa ngi ñaan rek ñëpp jëfee ndigal loolu ginnaaw loolu nag xanaa fàttaliwaat rek sumb yu nga xam ne tam yëkkati woon naa ko ci dëkk bu tedd bii bokk na si lii di ay yoon rawatina benn bi jëm jóge Mbàkke jëm Kayel te Tuubaa loolu yàlla def na lépp sotti na dañu xaar rek taw bi jeex nawet bi jeex ñu tàmbali liggéey boobu ci wàllu wér-gu-yaram it xam nga ne hôpital Matlaboul Fawzeyni liggéey bi sotti na juróom benn milliard ak juróom-ñaar téeméeri million lañ ci def tax na mu nekk tey hôpital bu bees tax waaye nag bi gën a léegi bokk tey ci hôpitaux yi gën a xale si biir Sénégal mooy bu mag bi ñuy defar incha allah feeg juróom-benn weer mois de mars la ñu gàttandu ñu inauguré ko boo joxee tur bi ñu si war a def danañ danaa jël décret bi ci ñu créé hôpital bu mag boobu ci Touba nga xam ne bu paree hôpital de niveau trois Sénégal mooy hôpitaux yi lépp mandarga dañ kenn dootu war a mën a jóge Touba di wuti euh, pajukaay feneen Dakar wala feneen fanweeri milliards ak ñaar lañ si def si suñu koppar ci hôpital boobu la ci wàllu ndox yaakaar naa ni matuwaay yi ñu daan jël ci màggal jëlaat nañ ko defaraat yenn ci ay château d'eau mënu ndamaatu defaraat yenn ci ay forage waaye nag surtout yokk ndax dëkk bi ni muy màggee mooy laaj at mu ne faw ñu yokk la ñu ba tax na loolu it gouvernement bi mu ngi si am nañu yàqin ne euh, liggéey bi nga xam ne ñu koy tàmbali ci wàllu étude dañu ñëwoon won la suñu yéene bu bu étude boobu paree danañu mën a ñëw waxtaan ak ci wàllu ndox mi nan nañ si amee solution boo xam ne dana nekk solution bu yaatu buy yàgg waaye surtout buy joxe ndox mu sell ci dëkk bu tedd bi ci wàllu courant tam yaakaar naa ni làmp yi gën yëngu ci dëkk bi waaye Sénégal yëpp la loolu yi dinañ ko gën a yaatal bu ci yàlla àndee euh, du ma faral di wax lu bëri ci réalisation waaye dafay laaj léeg-léeg rek ñu fàttali ne taxawaay bi fi newoon jëmb tey la gën a jëgër tey la gën a tar si sawet te loolu kanam rek la jëm incha allah kon loolu moo waraloon kàddu yi moo tax damay yeesalaat suñu taalibe si sa wet yeesalaat taxawaay bi ak taxawaayu gouvernement bi yëpp ginnaaw bu ma la sant bu baax a baax sant njabootu Cheikh Amadou Bamba bi fi nekk yëpp di beral nuyoo sama xarit sëñ Abdou Fada maa ngi koy tooñ léegi du ne dugg ak maanaam sëñ Bisaaxa sa rek ak nag di nuyu sëñ Basiru Abdou Xaadir bi xam ne yaa ñu boole muy yor sa kaddu moom it am liggéey bu rafet bu mu ciy ak mboolem jabatu Cheikh Ahmadou Bamba bi teew fii ñoom ñëpp si sa tur maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen andil nuyoo ak ziara réew mi ak ndokkale Sénégal ci bés bu mag bi ñu dégmal di la sàkku ñaan ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm yaatal fi jàmm sunu borom it matalil ñu nawet bii nga xam ne am nañ ci yaakaar ñun ñëpp muurloo ko ba nga xam ne xéwal yi dana yaatu ci biir Sénégal duñu fàtte lépp lu doon ay jafe-jafe yu fi jotoon jaar kon nag yal na ko yàlla def te boo si ñu am si bu baax a baax yaakaar loolu moo doon kàddu lu gàtt rek yu ma bëggoon def ci joxaat nuyoo taalibe bi nga xam ne ah, mu ngi wax si su doom kon jottali sama nuyoo. waaw waaw moom lay moom lay nuyu bu baax di la sant bu baax di